salaamaaleykum mbokk auditeur auditrice mi FM dal leen ak jàmm seen émission sans filtre di jotaay ndaw ñi fii ci réew Rewmi FM mi xadi bu jot lay am 15h jàpp 16 tey Pape Diop la ñu dalal moo di président bi ëmb kuréelu marchand ambulant yi fii ci Kër ma saar Pape Diop ñu ngi lay nuyu. Ah, ñoo ngi lay fay euh, vraiment di remercier si sa déplacement euh, vraiment lu yombul man nag maa ngi tudd Abdou Salam Diop mais nag Pape Diop. lañu may oowee Pape Diop nag ci sama maam la jógee moo tax la moo Pape Diop boobu moom moo gën a siiw Abdou Salam am na ñu ko xam ne bariwut mais man maay euh, président association collectif des marchands ambulants du département de Kër Massar euh, Pape Diop jërëjëf ci dalal na fii tey émission bi tey marchands ambulants yi ma yàggoon bëgg def ak ñoom émission tey la ko yàlla dogal ndax euh, avant maire bu bees bi euh, ki fi nekkoon Moustapha Mang jéemoon na ba sonn gis nañ marchand ambulant yi nu ñu encombré woon li nga xam ne moo di croisement Kër Massar bi mën mm-hmm. euh, nga ñëw ci jafe-jafe yi nga xam ne marchand ambulant yi moom la ñuy jànkonteel ba jamono ji waaw xam nga tey li nga wax dafa am solo bu ñu ne marchand ambulant rek égal jafe-jafe mm-hmm. ndax euh, marchand ambulant xam nañu ne ñu bari xam nañu ne ñàkk pexe moo fa teg la jeunesse mm-hmm. ak femmes yi fa nekk ñàkk pexe ndax boo xoolee état mënut a jël ñëpp il fallait que dëkk bi Sénégal moom moo soxla ay ouvrier soxla ay commerçant soxla ay étudiants mm-hmm. waaye soxla pàcc bu su nekk même ba si des ingénieurs ba si des recherches ba si euh, li nga xam ne moom mooy euh, santé bi soxla na ñëpp kenn ku si nekk fa nga mëne mm-hmm. mais nag yàlla ñu daf ñoo nattoo ñu boot ay jeunes boot ay ndaw jeunes yi nag 80 pour cent lañ si lañ boot daanaka boo xoolee femmes yi ñoo ngi boog 20 pour cent li waral loolu nag mooy parce que boo xoolee réew mi dafa toll foo xam ne ndaw ñi nga xam ne réussir ñu jàng moom moo ëpp ñu réussir jàng secteur informel bi ak secteur formel bi boo xoolee bokkuñu secteur formel bi ñi nga xam ne vraiment état jël na leen ñu ay fonctionnaires. matuñ sax un million. kon ça veut un million c' est quatorze millions d' habitants. loolu ça veut dire mën nañ jàpp ni treize million d' habitants yoo xam ne tey ce sont pas tey ñoo ngi ci dëkk bi peut-être suñu état moo amul doole doole boo xam ne ba war a mën a jël tous ces gens la ñu war a mën a liggéey léegi nag ñun on a compris ça ne est-ce que duñu xool ay solution xool solution yi mooy ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mbedd bi di liggéey ñu xool naka lañ leen di formaliser organiser leen utal leen structure parce que man mii marchand ambulant la parce que boo xoolee mbedd bi maa ngi si nekk 80 euh, maa ngi si nekk 2001 euh, laa nekk ci mbedd bi 2003 laa créé association bi 2010 ma euh, teg ko muy benn collectif parce que booba kuréel yi dañoo bari woon ñu boole ñun ñëpp suñu doole. Mm-hmm. muy collectif. léegi nag ba ñu ñëwee nag ba deux mille vingt vingt deux euh, ñu dugg ci départementalisation ñu ñëw def ko nag. Euh, colli association collective des marchands ambulants du département de Kër Massar. Mm-hmm. coono yooyu nag wax dëgg yàlla li ko waral mooy dafa tàmbali ci maire bi ñu naan maire Mbacke jàng bi Mbacke Diop la tàmbalee Mbacke Diop moom mooy première maire en 1996 léegi nag ba mu wàccee euh, yàlla def gàmmu booy ñëw gàmmu booy ñun fi lañ fekk 2003 mm-hmm. fekk na gàmmu booy toog 2004 2005 2006 ba ñu ñëw si 2000 ah wax dëgg yàlla 2000 euh, 2000 defe naa 2007 si la maire kii ñëwee euh, Mbacke Diop ñëwaat même la même maire bi moo ñëwaat jëlaat maire bi boo mu jëlaatee maire bi ñu nekk si ak ñoom même chose même système parce que man depuis lors laa comprendre ne il faut consensus am ñu teel a xool naka la ñuy organiser marchand ambulant yi balaa dëkk bi di màgg mm-hmm. ñu xool yenn espace yi def fa ay marché hebdomadaire balaa dëkk bi di màgg ndax boo xoolee marché ay numaat yi dafa doon marché boo xam ne fu mu nekk baaxul si digg dëkk bi la nekk ba pare en même temps ci xur la ne marché bi day inondé te ni nga ko defee baaxul léegi nag loolu laa njëkk teel a comprendre ma waxtaan ak ñoom pour ñu fexe naka la ñuy organiser li nga xam ne moom mooy marchand ambulant xool yan espace lañ leen di mën a dugal loolu nag ba ma koy def yàgg na yàlla def nag gàmm Mbacke euh, Mbacke Diop wàcc Moustapha Mbengue ñëw 2014 ba Moustapha Mbengue ñëwee 2015 moom mu def premier déguerpissement am la fa Mbacke job tegoon ñu nekkaat ci problème yooyu ma nekkaat ci yaakaar na Moustapha Mbengue tane pour ñu waxtaan xool nan la ñuy def parce que gisoon naa benn espace fii garage u Ndiaga Ndiaye ko a nekk dama taxaloog Paris Dakar espace boobu dañ ko doon jaay à cent soixante-dix millions ma waxoon ko pour ñu jël espace boobu def ko centre commercial pour marchand ambulant mais malheureusement boobu ba léegi abatuurul nag ñu nekk si nekk si ba yàlla def nag Moustapha Mbengue wàcc ñaari ñu def ko département ñaari maire ñëw affaire bi gënu a compliqué mm-hmm. mooy la maire sud ak la maire Euh, Nord. aadama Sarr bi laal ñu nekk si nag ah wax dëgg yàlla booba léegi ñi fexe consensus am parce que tegal naa leen benn projet nee naa leen. am na en face daral bi am na benn espace boo xam ne huit mille et quelques moo fa nekk boo xam ne dañoo bëgg ñun suñu biir ñu xool provisoirement naka la fa en ambulant yi demee pour ñu créer fa de 750 cantines. loolu yow yaa ko doon démarché. loolu man maa ko doon démarché wax ko ki nga xam ne moom mooy maire bi laal laa njëkk a toggal ci maire yëpp waxtaan ak moom ba mu joxe fi ay solution moom tamit joxe avem ne ni ah loolu baax na danañu jéem a fexe xool nañ leen di jàppalee xam nga joxe fi ay lampes solaires joxe fi ainsi de ainsi suite mais malheureusement boobu ak léegi affaire bi dara sottiwul li ko waral mooy Euh, bañ ne tabaski bi des na quinze jours ci la ñu waxtaan mais ba tabaski bi weesoo ay 4 jours si la la ñu waxoon yëpp accords yi ñu jotoon wax ñu sànni ko ci mbalit bi mhm. parce que li waral loolu dañu bàyyi ba marchand ambulant yi dem tabaski ji mhm. ñu jaar ci suuf nag ay presque 2 heures du matin ñu daal di def déguerpissement bagage u jàmbur yu ñu si bari fa yàqu parce que les c'est des millions xam nga loolu neexu mhm. te parce que moom joxe woon na nag sommation ba mu joxee sommation dañoo demoon waxtaan sommation boobu mu nar mu bàyyi ko mu ne léegi après tabaski dañuy amaat beneen waxtaan parce que dafa ne danaa ñu fi bàyyi benn tabaski ba pare mais après tabaski danañu amaat beneen waxtaan boo xam ne ñu xool naka lañ leen di organiser kon ça veut ne sommation boobu ñun dañ jàpp nañ ne sommation boobu existé tout waaw parce que ba mu ba ñu tegee waxtaan rek la parce que tous les vidéos sont là tous les preuves sont mm-hmm. si fi mu ko waxee yam yam nga dégg mm-hmm. mais malheureusement boobu ak léegi euh, kii am na problème am na suñu diggante ñoo ngi yéeg du wàcc euh, parce que yéeg wàcc boobu ñoom nag daf ñu ko xaw a jafele yombaluñu ko yox yombaluñu ko moom moo xam parce que si benn côté am na benn moment boo xam ne génnoon na mu ne Pape Diop euh, day day politique Assome Diatta la àndal nga nangam nangam loolu moom la concerné loolu moo taxoon mu pas mais bu si génnee su fekkee benn Pape Diop moom moo tax mu génn si moo ngi def erreur ndax Pape Diop sama vie privée man su ma neexee politique mm. sama politique ça n'a rien à ak structure bi ma yor structure bi ma yor boobu nekk na structure boo xam ne vraiment ay ndaw ñoom ñoo ko wër c'est purement commercial kon li ñuy def c'est de la politique commerce bi ñuy def c' est de la politique ñun structure bi ñu yor c' est la politique mais ni ñuy politiquer mooy politique de développement naka la ñuy xool ba jeunesse bi génn si coono gi mm. naka la ñuy xool ba jeunesse bii di taxawaalu ñu mën leen canaliser téye leen organiser leen jàppale leen ñuy liggéey ndax nit bu amul jot du mën a def yeneen yi naka su noonu mm-hmm. te yàlla dimbal nañu si y' a beaucoup jeunes yoo xam ne am nañ ci avancement ndax 2014 c'est la création premier centre commercial boo xoolee 2006 ba mu leen di wax ne euh, bu ñu demee ba si kanam fii ak ay jamono bailleurs yi dinañ ñëw songu Kër Massar te bu ñu songee Kër Massar bu ñu teelut a organisé wu dinañu ñëw jënd espace yu baax yëpp. kayoo da nga def créer centre commercial dugal ci ay ndaw ñuy liggéey. voilà dama créer centre commercial. Mhm. avec mes partenaires en tant que ambulant. toog dugal si ay ndaw ñuy liggéey. Pape Diop nekkatoo ambulant ku créé commerce centre commercial tey nekkatul ambulant. waaye man la yàlla nattoo nag ma jiite leen ndax moment ba ma leen di jiite boobu ambulant laa woon te ñëpp ñii dañuy ñaan. Mhm. ñu jógee maanaam ñu jógee sunu étape bu ndaw. Mhm. yéeg si étape deux. Mhm. te niveau tey bi ma yéeg tey tey organisation moom ko may. ba pare boole si vraiment. di def ay dialogue avec les autres partenaires pour ñu xool ban idée la ñuy parce que su fekkee man ambulant la woon rek. xëy xëy en place na dootuma ambulant bàyyi gars yi foofu. du du sotti. il faut que ma jàpp si. Mm-hmm. loolu moom moral ba léegi mën ma nekk si di jàppale marchand ambulant yi. parce que marchand ambulant yi bu méttee man la ñu gis gisuñu keneen amul benn autorité bu ñu gis te amaana xëy na sama loxo fi mën a yegg ak li ma capable def vraiment ak euh, vraiment euh, leadership bi ma am tamit peut-être ñu bari amuñu ko loolu moo waral vraiment marchand ambulant yi moo dooloo leen léegi nag 2014 ba ma créé premier centre commercial bi dugal ci ay jeunes ñu ñëw ma créé une deuxième centre commercial ñoom tamit dugalaat ay jëlaat. xibaar commercial yooyu fu mu nekk. Euh, boo am na bu takkaloo tout à 1000 francs bi. am na si boo xam ne nag. fii ci Kër Masar la Kër Masar am na si boo xam ne nag boo wàccee pont bi boobu côté boobu la ne am na si beneen boo xam ne nag moom moo ngi nekk zone bi nga xam ne moom mooy euh, wetu euh, Bank of Africa bi. Hmm. immeuble bu mag boobu. centre commercial yooyu nekkul batiment bu moom moom. dafa doon loo xam ne ay espace yoo xam ne dama koy gis ñu waxtaan seeg borom borom tabax ñu collaborer man ak moom ñu xool naka la may euh, naka lay créer ay cantine ci biir ma jël kantig yooyu jël ko jox ko jeunesse bi ay kantigu 1 mètre 50 3 mètre ba si 4 cinquante 50. ambulant yi nga koy jox. ambulant yi laa koy jox. ñu ko si nekk sa yi fi mu toll ma jox la ko ba pare li si ëpp importance mooy boole leen ak banque ñu leen di lebal ay prêt boo xoolee ba pare damaa négocier li nga xam ne moom mooy pourcentage bi nga xam ne banque bi moom la war a lebalee li nga xam ne mooy ambulant mm. bu doon 7 pour cent négocier naa ko ba 5 pour cent durée bi tamit durée bi euh, de prêt bi tamit négocier naa ko ba mu waral tey ambulant boobu yàlla dimbali ko moom bu waroon a fay si ay 6 mois 8 mois. dina ko mën a fay si 2 ans wala si 1 an et demi. wala si 1 an. kon bu ma la déggee location vente la ñuy def maanaam cantine bi après ñoo koy moom. waaw non du location vente parce que location vente day fekk nga moom site bi. actuellement location vente boobu nag si laa nekk nii di ko dox. boo xoolee dama bëgg état jàppale leen ci espace boo xam ne ñoom dañu am partenaire ñu indi defaral leen marché bu moderne boo xam ne kenn ku ci nekk sa cantine da nga koy def location ban da ngay fay ba mu jeex. ñaata euh, jeune nga ci jot a recaser ci marchand ambulant yi. 282 euh, jeunes laa ci jot a recaser mais fi nekk nii collectif bi ñoo ngi ci. vingt 3887 personnes yoo xam ne. ay ambulants ay lañu. loolu bokkul ak ñi ñu recensé gul. bokkul ak ñu recensé. te loolu lépp est-ce que ñoom ñooy nekk ci suuf pont bi di jaay. ñooñu non non suuf pont bi ay jamono. Mhm. ñoom ñoo nekkoon foofu si croisement bi di jaay. mais fi nekk nii euh, dafa am arrêté bu génn muy arrêté préfectoriel ak euh, arrêté boo xam ne mooy arrêté collectivité locale yi. Mhm. muy les deux maires. Euh, ñooñu arrêté yooyu noonu moom moo leen empêché vraiment ñu xaw a jege sax lu mel ni pont bi léegi nag dañ leen mujjee organiser ñu isolé wu tuuti suñu bureau bi ñu isolé wu pont bi bàyyi pont parce que pont bi dafa doon benn bijou boo xam ne sunu moomeel la ñun dañ koy aar te ñun boo xoolee ba tabaski bi desee 15 jours jëloon nañu ay sécurité di leen fay di leen fay journée 10 000 francs marchand ambulant ñoo ko doon def bureau allée bi nga xam ne fa la occupation voie publique bi mooy si passage piéton bi fu ñu ñi war a jaar ñu organiser telle sorte ba nga xam ne maanaam anarchiquement doy maanaam méttiwut bi paa kon nam naan métti ay jamono ñu koy tudd waaw léegi nag loolu yàlla dimbali nañu si bañ ne tabaski weesu na ba deux jours boobu tamit yàlla dimbali ñu wut euh, benn oto ndaraan ak benn euh, ki ak benn ki euh, camion mooy peel ak camion mm-hmm. yàlla def nag ñu dégager table yi fa nekk yépp organise ko telle sorte jàppale Ageroute parce que man préfet moom boole ak Ageroute boole maag monsieur Cheikh Fall mooy mooy chef des travaux mhm. yàlla def na ñu nekk si nekk si nekk si ma koy jàppale ko ba ba bi yemb kon marchand ambulant yi ñooy première structure boo xam ne ñoom ñoo jóg di jàppale Ageroute jàppale tamit vraiment waa Kër Massar si li nga xam ne moom mooy anarchie bi marchand ambulant ñoo def loolu collectif bi mhm. avec ses propres moyens amul cent kenn ku si dugg daal benn mooy fin bi yëkkati woon nañu une somme de cent mille francs ñu envoyé ko marchand ambulant ñoo xam pour jàppale leen ci kii te xam nga ne loolu mënu dara ci ci kii somme de cent mille francs dix jours mu mu jeex hmm. ñun nag yàlla defaloon nañ si jàmm wax dëgg yàlla euh, lañ ci mën def nañ ko rien que pour jàppale population bi ñu xam ne marchand ambilan yi defar leen tax jóg yàq taxu leen jóg te vrai vraiment boo xoolee léegi nii marchands ambulants sont très organisés li waral loolu mooy xam nañu ne ànd moo mooy seen njiglaay te moom moo war a am moo leen di dimbale yàlla dimbale nañu nag li ñu jotagum jaay ci kart membre laa la limal bokkulagul ñi nga xam ne ñoo ngi bëgg a ñëw parce que département daal la. 3 millions ci diggante Kër masaar sud ak noor kese la nekk. mu des jaxaay waa jaxaay war nañ fa jaar dañu war a def benn tournée. Mm-hmm. ambulant yi jaxaay dañu war a ñëw bokk si. ambulant yëmbal sud yëmbal nord ak Malika dañu war a ñëw ñoom bi yëpp maanaam ngeen dañu war a ñëw kon suñ ko suñ ko doon xayma nii te affaire yi ñëwagul ëpp na six mille et quelques yoo xam ne tey day nekk ci structure bi def nañ fi benn assemblée général pour valider li nga xam mooy suñu bureau waaw def nañ ko fi euh, bañ ne euh, jour vote bi ci biir campagne bi bañ ne jour vote bi des na trois jours lañ ko def mu lu extraordinaire ñëpp gis nañ ampleur bi mu amoon tellement parce que marchand ambulant yi fi nekk nii doole gi ñu am si Kër Massar ñu ci bari ñu ngi koy sous-estimer te toutes ces jeunes la boo gisee tey defu defatuñu benn problème parce que à l'époque lu mel ni amoon na maire Moustapha Mbengue toppoon na leen ba problème am fi ñu jóg yenn marchand ambulant yi mer jóg ñenn ñi ñi nga xam ne vraiment rek euh, teewuñu leen woon maîtriser wuñu leen woon te dañoo nekkoon ci yenn commune ñëw dem taal mairie bi li waral loolu mooy dañ leen topp bañ sës di leen encaisser mille francs ku ñu jàpp 15000 la ñuy encaisser ñii ñu leen di jàpp di leen tëj ñii di leen defee defeere n'importe quoi mel ni réew mi jeunesse bi ci boppam bokkuñ ci mel ni marchand ambulant yi daal ñoom bokkuñ ci réew mi di leen toroxal ñi nga xam ne bu ñu bëggee marchand ambulant yi bu ñu bëggee marchand ambulant yi def na ko su dul noonu xam nga lu ñuy def dañ leen di provoqué bu ñu leen provoqué xeex anarchie boobu di am moo si la ñuy gën a mën a lekkee xaalis mairie bu fa nekkoon bu njëkk ba noonu la doon def waaye mairie actuelle bu sud yi tamit noonu lay def parce que ñu toog ñu waxtaan ñu réglé ko une bonne fois am na ñu mu arrangé wul foofu. ndax que dañ si am ay lekk. parce que marchand ambulant bu ñu jàpp dañuy lekk si yow benn 4000 francs wala benn 5000 francs ba 8000 francs wala 3000 francs yooyu ñuy lekk si marchand ambulant yi moom moo tax ñoom bëgguñu problème bi lijjanti ko. parce que seen seen seen seen seen lekkukaay la boo xam ne vraiment loolu peut-être ñoom ñoo xam lu tax te loolu ñun loolu baaxul. wax naa la leen loolu moo fi indi woon problème entre bi marchand euh, Moustapha Mbengue le maire Moustapha Mbengue ak ambulant yi te loolu moom mooy indiwaat ak maire bilaal ak ma am Milaay parce que ñoo ngi si actuellement euh, rapport de force rapport de force chaque jour rapport de force bu yàggee ça va créer des problèmes te loolu wax euh, woo naa si Bilal waxtaan naa seeg moom pour mu recevoir ñu ñu xool naka la ñu amee benn consensus Bilal ba léegi répondre ma daf may daw nanguwuma recevoir Adama Sarr dem nañu pour mu recevoir pour ñu waxtaan ci côté bi ci noor bi mais ba léegi yàlla dogalu ko yaa ma dégg euh, ñoom tamit maa ngi woo moom Adama saar mu ñëw ñu toog ñu waxtaan parce que ñun bu ñu sañoon dialogue di am ci diggante marchand ambulant yi ñun on a la solution loolu si xam nu mooy on la solution wax naa ko préfet wax ko maire wax ko dama ne ko toutes les autorités tey politiciens yi gëdd gi ñu am ci seeni militants man gëdd googu laa am tey si marchand ambulant yi ba ku ma waxal da ngay bàyyi lu ñuy bari bari bari bari su ma taxawee yëkkati sama loxo yàlla may na ma loolu ñu déggal ma su ma waxee ñëppay bàyyi loolu moom moo waral boobu léegi déggoo leen fi incident déggoo leen marchand ambulant yi ñoo def lii wala ñoo def laa ñoo def xeex ñoo te pourtant gars yi leen di provoqué chaque jour des agents municipaux ñu ngi leen di provoqué chaque jour ba des fois incident bëgg am ma jàpp si wax gars yi bàyyi mais loolu nag bu continuer lii nga gis nii bu si état wala boog les autorité compétentes taxawut bombe à retardement bi nelaw Kër saar la parce que am na foo xam ne bu ñu fa tolloo man mii seen président dootuma leen mën a téye te loolu laay bañ moo tax nag gars dañoo war a gaaw jóg jóg si ñu waxtaan man idée bi ma am ma proposé leen ko gars yi faj ko ndax état mën na ko le président Macky Sall Euh, ministre Assome Diatta woo nañu fi ba ne jëlal nañu audience boo léegi France daal di xëy dara amu si gisuñu daara ñëpp a toog seetaan marchand ambulant muy kii muy kii ñëpp leen seetaan. kenn amul solution daa mel ni. parce que solution bi nee naa leen kenn yoru ko si ñoom man wax naa yéen ñëpp kenn yoru ko préfet yoru ko maire yoruñu ko euh, le ministre Assome Diatta yoru ko. yaa ma dégg képp ku fi autorité yoro solution bi seul le président Macky Sall moo yor solution bi ndax espace bi nekk en face daral bi moom dong moo mën a jox le ministre Abdou Karim Sall ministre de l' environnement. Mhm. pour mu mën ñoo jox autorisation provisoire parce que y' a des infrastructures yi fa war a am. 14 ectare da nga ko war a déclassé. Mhm. foofu noonu yaa a euh, am na zo 14 hectares yi zone industrielle la parce que dafa war a am euh, li nga xam ne moom mooy euh, gare routière dafa war a am berte bi dafa war a egsi dafa war a am camp sapeur dafa war a am camp kii ñu ko wax caserne gendarmerie da ko fa war a am ba pare en même temps dafa war a am foofu stade municipal dafa war a am foofu ba pare conseil départemental bi seen batiment bi foofu la war a ñëw le préfet préfecture bi seen batiment bi foofu lañu ko war a tabax. loolu mooy yéexal donc. moo yéexal affaire bi les sous-préfectures foofu lañ ko war a def. li nga xam ne euh, ñoo ngi ko fa a def tamit en même temps moom mooy marché marché moderne bu 754 état bi defar na plan bi si CRD bi man demoon naa mais actuellement loolu ñun mënuñ ko xaar dañoo bëgg espace boobu ñu jóbbu fa marchand ambulant provisoirement pour mu leer en attendant su ko defee bu ñu yàlla dimbalee bu projet yooyu ñëwee ñu puus ñu defar bu ñu paree ñu recenser ñu dugal ñu si si si si ambulant si kii yooyu noonu mm. mais nag ñu bëgg mu doon loo xam ne waa Kër Massar lañ koy jox ambulant yi fi ne te dañu nekk ci structure ñu recensé leen ñoom lañ koy jox ñu bañ koo dem jox ñeneen. si si foofu laa naroon ñëw may yéen aussi est-ce que jotul tam ngeen xam ñan la ci ambulant yi ñoo dëkk Kër Massar parce bëri na ñoo xam day ñëw fi di liggéey nekk ay ambulant te dëkkuñu fi. voilà non Sénégal moom kenn duggul fenn. nous sommes tous des étrangers. mais tam keneen warul jóge beneen commune ñëw aussi moom laa lay wax dama ne la nous sommes tous des étrangers. war ngeen taxawaay ndax am na ñu jóge fii Kër Massar dem Dakar di liggéey dëkkuñ fa. te pourtant dañ fay def leneen ak leneen mun nañ leen dàq foofu ne dëppoo leen fa. am na ñu jógee fii dem ba Touba dem fu leen neex partout dans le monde te pourtant mënoon nañ tax vous êtes pas des sénégalais dàq leen fa mais du demee droit de l'homme nit ki dafa am ay droit droit yi mu am mooy am na droit dem fu ko neex mu liggéey mais nag règlement yam fa fekk mu tënku si mu tënku si réglement yooyu ñun nag suñu problème du kii dëkk na fekk kii dëkku fi xam nga lan may wax ñun ñëpp ay carte d'identité sénégalais lañ yor carte d'identité CEDEAO lañ yor le président Macky Sall bu génne woon carte d'identité teg ñu génne suñu carte d'identité amul différence keneen tamit la même chose mais question bi du foofu question bi xam nga question la la question d'organisation la kon boog nañu gars yi jël marchand ambulant yi ñu organiser leen mais ñun recensé nañu les toutes les marchands ambulants te xam nga li si li li gën a yéeme si affaire yi gars yi lu ñu xamul mooy marchands ambulants yi dañoo def ay transfert en masse maanaam dañoo transféré seen carte d'identité biir Kër Massar Mm. te transfert en masse yooyu def nañ si 1800 transfert en masse. mais lu tax loolu. xam nga lu waral loolu pour ñu xam ne si dëkk bi lañ dëkk léegi ku fi falootu ñu ñoo lay fal. à partir d'aujourd'hui te transfert yi di ñëw fas yéene nañu nee naa marchand ambulant bëgg naa lu mu bon bon bon deux mille deux mille cinq cent transfert bëgg naa ko. décidé ngeen. waaw décidé nañ ko deux mille cinq cent transfert laa bëgg Kër Massar te ñoom ñëpp d'accord nañ si fi nekk nii léegi fi nekk nii ñëpp dañu transférer si biir commune sud ak nord ñu téye suñuy carte d'identité ci waa waa waa jaxaay ñoom tam dinañ transféré marchand ambulant yi fa ne ku fa dëkkul di nga transféré waa yëmbal sud yëmbal noor képp ku dëkkul commune ba nga ne foofu ngay transféré ñu def ko transfert en masse ba nga xam ne léegi maire bu fi toogati sax ñun bu ñu ñooy bokk ñooy bokk si ñuy décider ci ndax di nga fi toog ndax ku ñu taxaw ñun ñu taxaw ne da nga fi nga fiy falu votel la da ngay da ngay toog kuñ fi votal da ngay toog ndax boo xoolee local yi nii Martin Ambilay ñoo votal maire maire Yewwi ah maire Bilal bi ngay gis ni ñoo ko votal ndax ba ñu ñëwee en masse ñoo génnandoo jël ay njaga njaay ñoom ñu dem vote ñu législative yi dañoo pare woon jàppale la président Macky Sall xam nga pour lan xam nga ndax lan parce que dañu neen ne ñu nekk lu ñu fi ma paate wala ma sàmba mm-hmm. mais yoo yi dañ leen dañu leen amoon yaakaar su ñoom xam nga ban yaakaar la ñu am. maanaam yaakaar bi daa tas waaw xam yaakaar bu ñu amoon. Mm-hmm. mooy maire bi fii ne. parce que xam nga tamit ñi ni dañuy jaawale gis nga voté da nga koy mën nit ki dangay ngay mën voté marchand ambulant ñoom seen intérêt xam nga mooy lan maire bi fii ne ñu collaborer ak moom espace yi fi nekk ñu jàppale leen fi ñu toog liggéey si jàmm. yaa ma dégg ñu amoon yaakaar si maire bi fi ne yàlla def nag maire bi lam ñu waxoon dara def ko comprendre nga ba muy ñëw di campagne la mu waxoon la mu promettre dara def ko si. lu mu leen waxoon da leen di recadrer. non dafa waxoon ne du du maanaam duñ leen fi jëlee dinañ leen organiser waaye dinañ leen utal ay espace loolu la ñu waxoon. mais loolu France daal xëy na defu si dara ñu ñëwaat euh, tey ba loolu weesoo ñu dem tey si côté pouvoir bi pour ñoo xool naka la ñuy jàppale. parce que tamit bu ñu si côté pouvoir bi bu ñu ko waxee waxuñu ne en tant que les hommes yoo xam ne dañuy jóg pour ñu ànd ak ñoom politique déedéet parce que ñun lépp lu ñuy def ni sommes très intelligents xam na nu ñu koy defee dañuy dem ànd ak ñoom pour ñu jàppale ñu parce que ñoom ñoo yor loxo bu gudd pour ñu jàppale gars yi ñu ñu nekk en règle ñu liggéey liggéey ñu tax a jóg ñun du ñu solal kenn t-shirt bu ñu daw di tàccu kenn bu ñu daw di naan dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dugg si rassemblement politique yi duñ ko def mais nag ku yor coordonné ministre du commerce lu mel ne Amadou Assome Diatta mooy sunu ministre tutelle am nañu droit dem ci moom te dem nañu ci moom te ñun sax du ñu moom ñun ñoo dem ci moom direct li ñu dem mooy ki ñuy woowee ci euh, benn conseil spécial bi président moom lañ demoon seeti ji vraiment ma koy nuyu muy tontoo Joni euh, Joni Joni Ba ñoo ngi koy nuyu bu baax moom ci boppam moo delluwaat boole ñu waag ak Assome ñu ñëwaat ci asom ñu recevoir ñu ñu waxtaan ak moom ba mu dalal suñu xel xamal ne dina ñu boole président mais boobu léegi rien n'a été aboutir amul dara lu si am léegi nag ñoo ngi toog di xaar ñun li ñuy bëgg suñu problème réel ki ñu ko mën a fajal mooy le président Macky Sall la ñu bëgg a toog ak audience le président yow kese yaa mën a regle problème bi maire yi nag li leen di doyee mooy nañu may jàmm organiser wu ñu jël seen recette nit da ngay maire day yeewu toog fi di affaire de patriote yooyu affaire de eh, sonkis yooyu noonu loolu ça ne marche pas avec nous ñun kenn mënuñoo politiquer bu dee politique ñuy wax ñoom ñoo ñu mën ñoom ñoo ñu bëgg a politiquer parce que benn ñoom ñoo waroon xool naka la ñuy organiser ces jeunes là ñoo xam ne ce sont des citoyens si dëkk bi lañ dëkk doomu doomu Sénégal lañu doomu Kër masaar lañu ñu jàppale leen. ñu liggéey ñoom ñu récupérer seen recette dugal seen gafaga su ko defee nag trésor public dinañu mën a def ay euh, projets yoo xam ne su sont des fonds fonds propres mairie yi nañ ko mën a def te ñun marchand ambulant yi sawaay gars yi dañoo xeeb mais ñun yor nañu ay partenaires yoo xam ne mairie bi si boppam ak seen nit yoruñu ko ndax mairie bi nee naa ko man mën naa la indil ay partenaires waaw mën naa la indil ay partenaires yu lay pavel espace public yi nga bëgg ñu pavel la ko mën naa la indil ay partenaires yoo xam ne mën nañ la jàppale si éclairage public yaa ngi dégg loolu ay solaire ultra puissant yu am solo mën nañ la si jàppale mais nag su fekkee woowuñu si dialogue tooguñu waxtaan duñ ko mën a jàppale ñun bëgg nañ jàppale ñaari mairie yëpp parce que ñun yàgg nañu sur le terrain yàgg nañu waxtaan ak les partenaires yàgg nañu dem fu foo xalaat dem nañ fa. mais ñu ngi leen di jàppale partenaires yi pare nañu ñun pour jàppale ñu suñu amee espace. dañu war a collaborer ak mairie. dañu war a collaborer ak ndax ñoom ñoo fi kilifa yi. ñoom ñooy ñoo la c'est ça ñoom ñoo yor signature yi. ma mhm. dégg kon ça veut dire ñoom dañu war a collaborer ak ñun partenaires yi si boppam soogaa di ñëw en secousse kon ça ñoom partenaires yi pare nañu ñu bu ñu amee espace ñu defaral ñu ay demon cantine démontable 705 ba 1000 cantine ñoom pare nañ pour defar pare nañu pour pavel ñu foofu yëpp espace boobu yëpp. pare nañu pour jox ñu éclairage public pare nañu pour dugal ñu fa ndox pare nañu pour dugal ñu fi pour dugal ñu fa courant. ah ba ba si ba si ba si ay euh, caméra surveillance am nañu ay partenaires yoo xam ne ay caméra surveillance ultra sant yoo xam ne day am li nga xam ne moom mooy. Euh, bu bu guddi jotee bu lamp yi fayee day am euh, day day day day day mën a. day mën a day mën a filmer si guddi gi. yaa ngi dégg ba nga xam ne defe naa loolu la ñuy woowee loolu lañuy loolu la ñuy woowee kii ah euh, ay ay caméra. caméra solaire yi nii yaa ma dégg yoo xam ne même guddi gi mën na filmer am mën na leer visage yu nit ki mën na génn yooyu yëpp vraiment am nañu waaye écran rouge yi ay caméra écran rouge yaa ma dégg vraiment gars yi pare nañu pour jàppale ñu si loolu parce que loolu yëpp ñu dox nañ ko ba pare d'accord euh, Pape aussi bëggoon naa ñu wax si euh, problème yi nga xam ne sànq yaa ngi koy wax nee nga dafa am ay tablier am na aussi ay marchands ambulants. Hmm. Ah, bëri ngeen ñan ñoo ciy fay juuti exactement parce que damay gis souvent euh, ñenn ñi dañ leen di dàq. ba hmm. nangu seen bagage. waaw xam nga foofu même borom aussi dañuy jël seen bagage. xam nga foofu nag euh, maire bi am na lu mu si waxoon maire bi laal dafa ne marchand ambulant bu nekkagul si règle maanaam ku jël xaalisam yaa ko fa teg mu wax ju am solo mu ne marchand ambulant hmm. il n'est pas réglementé kenn waruta jël xaalisam kon ku jël xaalisam yow yaa ko teg foofu boo jëlee xaalisam sous forme de location la parce que occupation voie bi ñoom am nañu droit joxe ko joxe autorisation waaye nag si biir autorisation boobu noonu su fekkee nit ki danga koy encaisser jàppal ne yaa ko autorisé mu toog foofu léegi moo tax munu moom bu ne moom du encaisser marchand ambulant mais or que parce merci or que moom li gën a garaaw encaissé la ñuy def. parce que dañuy ramasse marchand ambulant yi di di leen encaissé kenn autorisé voilà léegi nag boo amande léegi loolu même bu doonee amande na am transaction transaction bi mooy yow ramasse naa la dafa war a am quittance bu jëm trésor public ñu xam ne lii di dugg ci gafa ga Kër Massar mais du am traçabilité li muy def mooy ñoom dañuy ñëw rek récupérer xaalis nit ki bàyyi ko mu dem xaalis boobu fan lay dugg y'a problème kon ça veut dire ne ñoom ñooy encourager ñi nga xam ne vraiment moom mooy ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi def naka su noonu ci mairie bi parce que ñoo ngi seetaan loolu te xam nañ ne loolu am na agent yi def naka su noonu ñoo ñoo leen di te marchand ambulant yi loolu ci boppam dinañ ko dakkal léegi ñoom bu ñu ko bëggee dakkal dinañ ko dakkal ndax maire bu gën a gën a puissant Moustapha ñoom def na fa loolu bu ñu ko bëggee dakkal dakkal nañ ndax xam nañ fi ñu jaar ak ñoom ndax ay généraux de guerre yu yàgg wàcc si terrain bi ñoom ñoo fi ne am na expérience bu ñu yaakaar ne gaa yoo xam ne la dañuy ñëw nii rek patam patamee leen mu jeex déedéet du demee noonu moo tax ma ne la bombe à retardement moo am Kër Massar gars yi nañu fexe nu ñuy jëlee loolu ñu xool nu ñuy organiser marchand ambulant yi jàppale leen mais avec cette façon là ñi ko doon def ñëpp kenn réussir si parce que marchand ambulant bu xëyee fii lañ dëkk bu xëyee fële lay dem taxaw yor ay bagaasam boo boo ñëwee ñu puus boo demee ñu ñëwaat toog yow yaay sonn rek yow yaay dem ba sonn mhm. parce que ñoom am nañu jot ku am jot nag bokkul ak ku amul jot mhm. ñoom dañuy xëy heure te amuñu heure bu ñu wàcc ba léegi noonu la ñuy ba une heure du matin ñoo ngi ci mbedd bi di liggéey mhm. yow nag da am heure wàcc kon ñoom mun leen génne fii wax naa ko autorité yi nee naa leen yéen solution bu fiy génnee marchand ambulant man mii Pape Diop maa ko maam maa ko yor ñoom yoruñu ko ndax man lañ déggal maa yor stratégie maa yor technique yi nga xam ne bi nga ko defee dina baax si ñëpp dina baax si population waaye dina baax tamit si li nga xam ne moom mooy mairie parce que dañ jot seen recette waaye dina baax si état dina baax si population mhm. kon boog ñoom nañu fexe ñëw ñu toog si benn table ñu waxtaan mhm. suñu fas yéenee jàppale marchand ambulant yi ñu jàppale leen une bon fois pour tout ñu bàyyi seen tàppale gi parce que am na si loo xam ne mënut a dox te man Pape Diop doxuma si loolu ndax 2003 nga jiite ay nit ba léegi amul kenn ku taxaw di contesté wala di la jéem a diir mbagg xamal ne fu ma leen dama dama leen dama leen yóbbu fu sori moo tax dama leen mën a jàpp dama leen mën a génnee si seen tolof tolof yi mairie bi nag bu deful lu gaaw ba ma am ay espace privé moom du laal 100 francs yaa ma dégg bu boobaa du laal cent franc ah, te bu mu continuer di ma di di songu marchand ambulant yi nii dinaa joxe consigne kenn dootul joxe juuti. mais lu tax. lu tax parce que nit ki noonu ko jëlee foofu di encaisser sa xaalis jógeel foofu ba pare fay ma loolu loolu mooy la jógeel foofu kay jógeel foofu point mais dañuy jógee foofu seen juuti man ñëw di encaisser. te teewul man si boppam nee naa gars yi fay leen. parce que maire bi amul doole dimbali leen ko. non nee nga buñ leen di dàq. waaw dañ leen di fayloo. merci moom la mu waxoon ne bu leen dàqee. lu koo dàq waroo ko fayloo moom moo ko waxoon mais c'est le contraire actuellement ñoo ngi leen di dàq te teewul juuti maan ba chaque jour mu ñëw chaque jour mooy fa waa mais problème sax man lay woo fi may waxee dama bëgg ñëpp dégg dama la juuti maan bu amee problème man lay woo man maay dem si gars yi ne leen eh fay leen parce que bu gaa yi am dëgg su ñun xam lu tax may def loolu pour jàppale collectivité locale mairie bi amuñu doole ay mairie yu bees lañ moom fa mu nekk si boppam dañ ko dañ ko fa abal mair sud nekkul sax côté trottoir. Mhm. Euh, Kër Massar sud. ci jaxaay la nekkee moom. parce que déjà maire opposant lañ te ku nga président Macky Sall boo àndut ak moom dina am yoo xam ne euh, noo def foog mu jéem laa faagaagal euh, jéem laa xañ yenn sa yenn droit yi loolu moom ku ne xam na ko ci moom est-ce que yéen itam doo leen patienté que waa mairie bi bu ñu sukkandikoo ci ñoom nee na site bi nga xam ne moom lañ leen doon bëgg a jox mooy wetu garage bi. ay yenn këyit rek moo ci tax maanaam këyit ci mel ni ay euh, eaux et forêt ak yeneen ak yeneen loolu moo ko retardé. kon kon kon ça veut dire lu ñuy xeex benn la ñoom bu ñuy xeex di daw si si si wetu garage ñun ñuy xeex daw foofu xam nañ ne foofu rek a des espace. bu ñu xamee ne bu ñu xamee ne foofu rek a espace. Mhm. kon nañu wax askan bi dëkk yaa ngi dégg bu ñu toog di ñu promettre lu nekkagul. parce que ñun xam nañ ne mairie bi guddi gi mënuluñu lu dul ñu toog provisoirement ñu organiser leen ñu liggéey amul dara lu ñu mënal lenn lañ koy ñaan moom comme que moom mënut a joxe espace te moom day laaj espace ñun tam dañuy laaj espace nañu toog ñu waxtaan ndax su jàngoro yi ñoo ko bokk. réanimation la nekk la nekk ñun nekk réanimation. ñun ñoo mën a waxtaan docteur bi mooy le président Macky Sall. kon boog mënoo doon yow ci boppam malade ba pare ne da ngay xeex docteur ba du la faj. problème bi loolu la boo taxawee ci télé yi na Macky Sall nangam nangam waxul la neex pont bi pare nga ne Macky Sall nangam nangam yéen marchand ambulant yi dem leen ngeen toog foofu la maire Bilal moo ko wax moo ne marchand ambulant yi dem leen ngeen dem. lal ji mooy jour ba ñuy def euh, ouvertir pont bi dam leen ngeen lal ci pont bi dam leen lal ci pont bi barke Seydina Muhammad moo ko wax loolu <laughs> parce que moom opposant la day saboté léegi ku mel noonu est-ce que kooku si boppam war ngaa mën a taxaw yow nga naan yow sa waay di di di xaar pour état dimbali la boo yoree mairie du yow nekkutul yow ndax Pape Diop simple ak Pape Diop maire bokkatul intérêt commune bi nga yor da ngay jël sa intérêt personnel teg ko ne jël affaire de politique teg ko nële xam ne ne administration ça naa rien à ak politique mm. kon boobu demal nga tendre la main le président Macky Sall mu jàppale la tendre ko la mais en tant que membre maanaam euh, secrétaire général APR donc tendre la main en tant président de la république te war naa mën a jàppale ñëpp la la maire Adama Sarr dafa dem le président recevoir ko mu tendre ko la main pour mu jàppale ko loolu mooy intelligence sa gars man je l'estime beaucoup parce que il est très intelligent le maire Bilal maa ngi koy woo mu wàccee ay dangaram xam na ni fii Sénégal la loo fi tàng tàng tàng tàng sawaay da nga mës wàcc parce que Sénégal dafa am nu muy doxe na ñëw mu dialogue ak population bi dialogue ak toutes les couches ba pare na tendre la main le président Macky Sall moom la fi yàlla teg ba ba muy ba ñuy gis keneen bu ñu gisee keneen man Pape Diop je travaille avec tout le monde man duma contre état suñu structure du contre état ñun contre ñu état ànd nañoo ak le président Macky Sall si la le président Macky Sall lañ la wax. waxuñu la waxuñu la euh, APR le président Macky Sall pour mu clair. Sonko bu ñëwoon doon président ànd nañoo ak moom en tant que président pas en tant que ay Pastef. la maire Bilal ba ñuy demee en tant que maire lañ fa demee. pas tant en tant que Yewwi Askan Wi le ministre bañ fa demee demuñu fa en tant que Benno Bokk Yaakaar en tant que ministre tutelle di euh, ministre du commerce Amadou Oto ngi fi te demuñu fa ministre ministre du budget la ah demuñu fa kon boog gars yi bu ñuy jaawalee yenn yi ñun dañoo nekk suñu yoon suñu yoon bi ñu nekk dara luñ ko yàqal te bu soobee yàlla ensemble dinañ ko réussir ndax nous sommes des jeunes nous sommes des jeunes déterminés gëm suñu bopp te xam nañ ne fa ñu jëm fii Sénégal bii ak Kër Massar surtout Kër Massar dañ fi am suñu wàll. Euh, en tout cas problème bi du yomb réglé du yomb parce que day mel ni entre pouvoir ak opposition te tey. Euh, tey bu ñu bis bu ñu maire bi fi toog bis bu réussir recaser lépp luy marchand ambulant réussir li nga xam ne mooy occupation anarchique bi li nga xam ne maire bi fi toogoon moom la ko ñëpp doon yàgg di sàkku te bu ko réussir day mel ni échec ci ñële. mais y' a problème président Macky Sall. mais y' a problème. <laughs> xam nga affaire bi y' a problème kon boo course à la montre la comme que course à la montre la làmb jaa ngi nii ku mën sa morom daan. le président Macky Sall na won gars ne maa leen mën nañuy yenu ba si kaw dóor suuf nu ñu recasé jàppale ñu jox ñu doole may ñu doole recasé marchand ambulant yi ñu nekk ci seen jàmm ñu def vente de location ñu am seen kanting location wàcc leen bu dee wax dëgg yàlla comme ni ñu ko waxee maanaam boo defee lii ñii du leen arrange boo defee ñii du arrange trottoir bi bi ñuy wut ñun bilaal moomu ko ndax moom bu ko moomoon jox boppam yaa ma dégg ndax dafa dañ ko abal kon bu kon ko moomu ko ci département de Pikine la féetee ndax euh, forêt classée de mbaaw la kon le président Macky moom abilité pour war koo mën a jox ku ko neex kon boog ñun ñoo ngi koy ñaan nous sommes des jeunes de Kër Massar ñoo ngi koy ñaan problème bii am occupation anarchie bii mu régler ko une bonne fois pour tout mu am ay points bu dee affaire politique la bu dee Bilal moom mën na ci dara yeewi askan la ah bu dee dafa bëgguñu ñu ne waaw moom la moom tamit na góorgóorlu mu def dara ñu ne mais nag ñun nekkuñ foofu ñun dépassé nañ foofu ñun daal ñoo ngi ci diggante bi jeeg jeeg bu rafet lañu nice bay bëgg a dee toll suñu jamono ñoom ñoo ñuy doxaan ku kum si neex nag ngeen baal ma si kàddu ko kum si neex nag ñëwal nga wax say wax wax wax ju gën a neex proposé ñu or wala jamaa wala loo ñu proposé ku ëpp loo proposé ñun fa lañ jëm. dëgg dëgg. kon boog may bu njëkk la ñuy xaar may bu njëkk la ñuy xaar nag ku si nekk indi sa may bu njëkk <laughs> njëg may boobu doole ñun ñu def foofu loolu la rek. Pape bëggoon naa ñu aborder benn sujet aussi boo xam ne soxal na trop waa Kër Massar mooy. maquette maani est-ce que si yéen lañ bokk. ma ñun kullu kullu marchand ambulant kullu laa la wax kullu jaay ko jën bi jaay ko du daqaar bi ah jaay ko du bi. da de jaaykatu ba ba ba ñi nga xam ne sax dañoo nekk ci biir koñ yi di jaay gerte caaf di ko teg seen buntu kër yi ñooñu dafa am ñu bari ñu ci bokk ñu bari nag dañoo yaakaar ne ambulance ñuy taxawal fii kese lañ déedéet ba ci biir population ba ñi nekk si biir koñ yi di jaay ay nekk si am ay cantine si biir koñ yi ñi am ay tablier si biir koñ yi ñi ñii di taxawal si biir koñ yi ñëpp dañoo jënd ay carte membre si biir structure bi lañ bokk moo tax nag boo xoolee fii nii rek da nga naan 3000 fa lañ ne déedéet 3000 yaa ngi si biir dëkk bi nous sommes plus que nombreux comme ni ñu ko ñoom ñoom ni ñu ko xalaatee. kon ñun suñu structure noonu la demee kon les zambi les les ni ñu les maquettes man la am na nag ñu bokkul dañ koo dañ koo organiser maquette man yi nga xam ne ñun xam nañ leen ne fii lañ dëkk dëkk bu ñu ko waxee fii lañ yàgg di jaay yaa ngi dégg soit yàgg nga fi loor xam nañ la wóolu nañ la mais am na su ñoo xam ne nag ñun dugaluñ leen suñu structure parce que wóoluwuñu leen parce que dañoo yàgg def ay toj toj syndicat yu judiciaire vierjul ba pare euh, euh, vierjul mm-hmm. dañuy dañuy njuuj njaaj dañuy def ay affaire ñun ci boppam dañ leen xam ba ñun sax euh, dañuy liggéey ak ñi nga xam ne ñoom ñooy la gendarmerie des fois bu ñu gisee cas yu demee noonu dañ leen di dénoncer la gendarmerie parce que ñun citoyen lañ ba pare mm-hmm. dañu war a collaborer avec la gendarmerie pour jàppale leen ñun sans les marchands ambulants les la gendarmerie ñu fi am problème parce que wax naa ko commandant nee naa ko ñun ñu si bari ñeen leen di teg loxo fii c'est à cause de nous ñun ñooy woote foofu di leen jàppale parce que ñun tam waruñoo seetaan luy taqal suñu der luy yàq suñu der parce que boo waxee marchand ambulant da nga naan am na ay sàcc yu nekk seen biir. dëgg la maquette maa ni surtout bëri na si ñoo xam ne ay dañuy sàcc portable. Mm-hmm. est-ce que yéen aussi. loolu bool boo leen boolee seen kuréel bi du mel ni day mel ni da ngeen di cautionné li nga xam ne ñoom moom loolu la ñuy def parce que ku ne xam ne portable dañ la koy sàcc ba pare ba motul sax yow ñu jaayaat la ko. waaw xam nga loolu nag. laa doon fi portable Kër boo demee si maquette boo demee di ko fa fekk. non loolu nag laal doon expliqué maanaam maquette man yi dañ leen organiser de telle sorte nga kenn dootul jëndati portable ku ñu xamul yaa ma dégg. xam nga portable deuxième main yi dañ ko fay jaay mais des fois nit ñëw soxla yor xaalis yor portable am soxla xaalis ñëw jaay ko fa kooku portable am la dëgg yàlla dañ ko koy nangul moom moo xam lu tax mu jaay ko mais nag dañ ko organiser léegi kuy jaayati foofu portable da nga fay bàyyi sa photocopie carte d'identité boo ko fa bàyyi portal bi kenn du ko jënd système boobu lañ def dañ na ne ba léegi sàcc yi si boppam am na si ñoo xam ne guddi gi wala ngoon bi lañuy ñuy profité ñu ñëw taxaw bi jaay léegi nag avec le temps ñun dafa am fu ñuy yem yaa ngi am na si loo xam ne vraiment force de l'ordre yi ñoo ko mën a def comprendre nga mais am na si loo xam ne état ñoo ñu war a mën a jàppale ndax état bu ñu jàppale woon ba ñu am fu ñu mën a canaliser wu dugg fa muy lu mel ni marché bu boobaa sàcc dootul mën a dugg foofu ndax benn dina am gardien kuy duggati daan dangay ngay lan nga fii wut ñëpp dañuy takk barji te te loolu sax maa ngi si maa ngi si système boo xam ne léegi market man bu légal dama leen bëgg organiser market man bu légal da ngay am barji ku fa dugg amoo barci dañ lay génnee foofu léegi système boobu la bëgg a def si côté maquette maani ba ñoo ngi ciy def ay séance de travail yoo xam ne pour rien que sàcc yi dootuñ fa mën a am accès sàcc yi dootu kenn dootul jóge fële rek yor sa portable rek dugg fa déedéet ku bëgg a doon maquette man da ngay ñëw jaar si bureau bi ñu xool la saytu la xool la nga dem uti sa cas judiciaire ñoo indi bu sa cas jugé vierge nga indi ñu xool ñu def enquête moralité si yow su fekkee ça va tout match ñu bàyyi la nga ñëw su fekkee san ne nag bu boobaa yow moom doo mën a bokk si li nga xam ne mooy maquetteman yi ndax maquetteman yooyu ay jeunes yoo xam ne dañoo bëgg a liggéey te amuñu ay moyens ñoom ñoo fa ne dañuy leb ji si ay banque ñu leen di fu ne partout ñuy ñëw waa loolu c'est normal parce que xam lu waral loolu parce que c'est anarchie gars yi ñoo leen organiser wu gis nga man sama projet état daf si war a daw bërëq état daf daf daf ko war a daf daf ma war a jàppale état dafa war a xam ne lii mel nii ji lii la la jeunesse bi yëpp war a def maanaam ñu ñu ñu teg ay structure organisé wu seen biir état ñëw à l'appui jàppale leen mais su fekkee état day toog di seetaan anarchie bi du gën a bare man tundum damaa mën a lijjanti loolu sama bureau dafa mën a lijjanti loolu ah, est ce que da nga fekk nit na ko sàcc nga doo ko mën a xam ndax sàcc yi léegi dañuy solu ba rafet sant ba neex yor seeni xaalis te doo xam ndax ci sàcc la léegi nag pour ñu mën a identifier loolu suñu organisation la ñu mën a jàppale ñu mën a def identification boobu noonu mais san loolu du mën a sotti dëgg loolu la rek projet bu am solo la peut-être message booy lancer autorité yi ñu jàpp si say voilà man autorité yi li ma leen di wax rek mooy nañu bàyyi seen intérêt crypto personnel yi. mooy. en fait loolu moo bloqué lépp. moo bloqué lépp gis nga gis nga population bi nii boo gisee des fois. benn nit benn politicien woote jeunesse bi yëpp daw fekk si parce que daf leen wax lu leen li ñu bëgg a dégg wax leen lu leen neex or que mën na dëgg doon dëgg mën na bañ a doon dëgg mais nag pour ñu bañ a utiliser ci jeunes bañ a utiliser ci femmes yi nañ leen wax dëgg dëgg gi ñu leen di wax mooy nañ leen wan yoon bi ñuy tekkee bu ñuy amee xaalis yoon bi ñuy def ba légal yoon bi ñuy def ba toog liggéey waaye yoon bi ñuy def ba ñépp tous ces gens là kenn ku si nekk nga war a mën a am avenir am avenir nag bu ñu ko waxee war ngaa jënd kër war ngaa am oto yu rafet war ngaa mën a boo boo xiifee nga lekk war ngaa mën a am au moins préparer sa retraite demain yaa ma dégg war nañ ko mën a dimbalee jeunesse bi mais malheureusement autorités yi dañuy ñëw di utiliser la jeunesse ak les femmes nañ ko bàyyi di ko def ndax man moom tant maa ngi dund les marchands ambulants autorité du leen utiliser te maa ngi leen di woo ñoom ñëpp ñu ñëw tendre naa leen la main ñu ñëw ñu àndandoo ñu ñu liggéey bu ñu liggéeyee bu soobee yàlla dinañ am résultat mais su fekkee man dama leen di tendre la ñu may daw ñii duñ ma recevoir ñii di ma kii ñii di ma xeex ñu àndandoo def seen coalition ànd xeex Pape Diop wala ànd xeex collectif des marchands ambulants loolu sottilul dara nañu bàyyi di politique yi ñu xam ne Kër Massar benn intérêt la am intérêt bi mu am mooy ñun ñëpp ñu àndandoo ñu liggéey commune bi liggéey département bi ndax mu mën a avancer ndax département yaa ngi concurrence Kër Massar dafa war a concurrence moom tamit pour mën a raw si département yëpp ci moment boobu lañ toll mais pas toog fii di politique suba politique ngoo intere crypto personnel yooyu nañ ko jël ñu tegee ko ne le j'invite le préfet les sous-préfets le commandant de la gendarmerie les maires ñu toog ci benn table ñu am benn consensus wax yàlla def benn dialogue boo xam ne intérêt ñëpp ñoo si doon nañu woo chauffeur si parce que lii nga gis nii circulation bi nga gis nii chauffeur si ñoo koy créer mais lu tax ñu koy créer amuñu espace bu ñu mën a def seeni garage nañ leen woo ñoom ñëpp ak les ambulants les commerçants ñu mën a toog ñu toog ci benn taable ñu waxtaan trouver solution ñu régler affaire yi une bonne fois pour tout muy intérêt tout le monde man loolu laa ko gisee mhm. et puis sax moom moom suñu maire bi euh, Bilal moom intérêt am la tey mu réussir recaser marchand ambulant li nga xam ne peut-être plusieurs maires yi fi jaaroon euh, réussir ñu ko voil maa ngi koy woo ci loolu parce que man mi ko yóbbul projet bi maa ko taxaw man mii leen yóbbul tey suñu projet maa taxaw ne dinaa leen jàppale. kon fekkoon affaire politique la mun nañ ne man pourtant man benn bokk yaakaar laa bokk. da fekkoon affaire politique la man loolu du ma si fekk mais dama leen war a jàppale parce que ñoom dañoo réussir problème bii ci askan bi di jooy dañ ko war a àndandoo ñun ñëpp ñu réglé ko une bonne fois pour toutes ñu bàyyi yenn yi te nag vraiment maa ngi nuyu nag bureau collectif des marchands ambulants bureau bi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu marchands ambulants yëpp di leen wax bi courage dina baax incha allah kàttan suñu borom nañ continuer wóolu bureau bi rek ñu xam ne ñoo ngi si liggéey bi vraiment tey seen président Diop le président collectif des marchands ambulants du département de Kër Massar moo doon def émission mi benn émission boo xam ne vraiment rajo bi. Ah, réew mi réew mi vraiment. Euh, réew mi nag bi nga waxee ñun ñëpp ko bokk. réew mi moo toj euh, toj jàngale. Mhm. kon boog réew mi FM ñoo ngi leen di félicité vraiment di leen jaajëfal bu baax di wax ñun ñii collectif bi maanaam remercier nañ leen bu baax a baax a baax di lu seen taxawaay. Mhm. yow Sylvie Sylvie maa ngi lay remercier bu baax. baax ndax euh, taxawaay bi nga am déplacé wu ñëw ba fii jël ma émission loolu la ñëpp war a taxawoo parce que li ngay def nii bëgg askan bi dégg li nga xam moom mooy dëgg bi ak taxawaayu marchand ambulant fii si département bi daf ci am solo vraiment service mu remercier. ñu lay jaajëfal bu baax Pape Diop ci sa teewaay donc di gërëm mboolem déglukat bu ñu doon bàyyi xel mbokk yi ñu leen di dig daje mercredi bii di ñëw même heure même fréquence beneen